asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Ah, Seyyid Cheikh Ahmed Tijani xam naa moom waruñu woon sax yëkkati kàddu waaye wolof dafay wax ni tombe mooy waral ay gaaf. defee daaw avant dernier cours bu colisée bi dafa am baat bu ma la waxoon ca Irshad ren avant dernier cours bu colisée bi baat boobu dama koy feddaliwaat ndax Muhammad mi ngi koy indi léegi borom bi subhaanahu wa bi muy lim ñi dëggoog moom def ci tudd baatu wa ma baddalu tabdila mooy ñi am constance te ma la wax daaw ca irshad ni la waxuma la man waxuma la sëriñ Babacar Si mii ma ni la waaye képp kuy mustarshid soo waxee yaa ngi ci biir kàddoom maa la ko wax daaw te loolu nag dañu koy feddali waaye li ma tax a jël kàddu tey xëy na ci wàllu fiqhu dañuy tudd fardu ayni dañuy tudd fardu kifaaya waaye dafa am bés yoo xam ni bésu seede la te tey jii bésu seede la seede bi it nekkul lu dul dëggal li nga xam ni moom nga wax ndax àdduna li ci am solo te damay wax ni moo dàq ci àdduna mooy xam sa bopp àdduna bu ñépp di coow boo xamee sa bopp li la yëngal du bari te li am solo rekk ni nga ko waxee ci suñu diggante mooy xam nañu ñaar mooy xam nañu li ñu boole lan la xam nañu yit ki ñu boole kan la xam nañu lim ñu boole lan la moo tax am na lu ñu sañul te danga am sama du ñuy wax sëriñ Muniru Sarr radiallahu taala anhu daf daan wax ni uxuwatu tëy ni inda lamsi maqtauha waaye uxuwatu diini fil jannaati lil abadi dafa wax ni yow muy wax ni mag di ñoo bokk deret ñoo bokk deret ñoo bokk deret nee na ma wan la ni deret am na fu mu yem nee na deret fa mu yem mooy li sa turandoo di wax ci les flancs inconsolables de la tombe nee na fa la deret yem nee na waaye ki nga bokkal principe it nee na bu leen bàmmeel tàqalee it nee na ngeen tasewaat ci kanamu borom bi mu ne moo tax bokk principe dafa ëpp doole lépp te yàlla ñuy suturaal simalik ba li tax ñu demee nii ñu demee bu doon deret du mën a demee nii mais principe bi ñu bokk la te it am loo xam ni ñu may ma tey rek ma préciser ko une bonne mooy gis nga sa turandoo sayid Cheikh Ahmed Tijani radiallahu taala anhu dafa mës a toog moom Serigne Cheikh ñu ni ko marché baa ngi toj mu ni lan mooy toj marché bi ñu ni ko dafa am ay mbokk menuisier yoo xam ni dañu toog tey di werante Serigne Cheikh ñu ni ko ni lan lañ doon werante ñu ni kon dañ doon indi comparaison ci sa diggante ak Serigne Mansour Serigne Cheikh ni tekk ba ci yàgg ni moo ne ñoom ñuy indi comparaison ci sama diggante ak Serigne Mansour de maag Serigne Mansour mosuñoo werante kan moo ci daq defar ban waaye am nag sutura bu yàlla def mooy sama digganteeg yow comparaison mënu ci am ndax lenn mooy conscient gi ñu conscient ci ni al mustarchidin wal mustarchidaat benn mission moo fi nekk suñu kilifa Seyd Mouhamadou Moustapha di ko doxal waaye jamono day dox mu dem ba xam ni ndax Seyd Cheikh Ahmed Tijani daf doon wax ni bu ñuy tudd al aarif billah nee na mooy ki xam tërali ni mu dem ba xam ni tëralinu jamono nag laaj na am na loo xam ni ndaw ñee ko moom mu jël benn mission boobu teg ko ci sa loxo kon benn mission fi nekk ci sa loxo la nekk loolu nag maam ñu conscient ci waaye am lu ñu yàlla dimbalee mag sa mbokk mi toog Serigne Babacar Sy waxuma ni ñun rekk la war a jàppale ndax am na koo xam ni la mu yenu du lenn kenn waaye lépp ñëpp la waaye yàlla dimbali nañu nag ba ñu xam ni mag moom ku war a summeeku ku jàppale la ñoo ci war a jiitu loolu nag mooy li nga xam ni moo ñu boole ak yow leneen ni ko waxee nag simaalik li nit ñi di junjeek wax naa la ko démb ma ni la dafa ñoo xam ni lenn na leen sonal mooy waxuñu seen xel seen xol lañu wax lu jara a bàyyi xel la ñuy wax seen xel ak ñuy wax seen xol moom daal si Malick lu mel ni li nga doon wax moom lañ doon jël pour rek dëggal li nga wax yal na yàlla gën laa noppalil yal na yàlla gën laa sàmm yal na yàlla jàppale la sa yéene ci sa kilifa yàlla mottali ko yàlla mottali sa yéene ci kilifa ci yow wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. <laughs> yéen naa la <laughs> sant yàlla sant yàlla rek fi nekk ah li war a leer leer na kon nag sañ nañu dellu ci nafar gi